صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في الخدم صلياً يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في الخدم وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار في الخدم وصليا يا إلهي يجزين أبدا أن محمدا لا ترى الغدا يا جاء بالأمم جاء بالأمم ذك المضى موصول جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم ذك المال منصور جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم ذك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 على شفيع الوراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مبك جلتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي دل سوات في تبير دزس تي في مي اكيبو سوكر وكور تي عندندوكو اك تفسير عبد الرحمن جاي نيما كوي وخي دي امباسادور يونان تي ambassadeur u alquranul karim ambassadeur mag ñu baax ñépp fa tabarakallahu ñuy ñaan yàlla yàlla na yàlla feq fadam ndax euh, ñëpp xam nañ ni samedi bu ne ci weeru koor dañuy ñëw di daje ak mbokk yëpp di bégee yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di wax ay jaar-jaaram ak ay jikkoom ndax mooy jëmm ji nga xamante ne yàllaa ko cëppeel ci kaw suuf ngir ñu roy ko li seen maam Seydil Hadj Malick si radiyallahu anhu wax ne Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mooy sama sëriñ mooy sama yaakaar waaye bu dara desulee lu dul roy yonent bi laay roy ndax moom la ma yàlla roy loo alors donc xam kan mooy yonent yàlla Muhammad moo waral ñu samp émission bi waaye ànd koog 2STV la 2STV ndax kat la ñu waxtaane woon barki démb maak tafsir toog ci daara ji jàngal téeméeri xale ñetti téeméeri xale junniy xale loolu dëgg la baax na trop waaye boo toogee ci télévision bi di nga jàngal ay millions yi doomu aadama loolu kon da ngay ratisser large ki may loolu nag jox la opportunité boobu muy kan muy la 2STV El Hadji ak soxnaam ak équipe bi yëpp ñoo ñu jëfal loolu lislaam yal na yàlla fay leen ndax kat seen télé bi yaatal nañ ci itam lislaam bu baax a baax yal na yàlla yaatal seen mbir yëpp di gërëm bu baax tey sant suñu kilifa diine yi nga xamante ni ñoom ñoo fi mag ñi tey ñoo fi wuutu mag ñi dama koy wax barki dem ne nekk waxatul papa rek yaa fi mag ñi tey ñuy gërëm tey ziyaara Cheikh na Ahmed Tidiane si al Maktoum mi nga xamante ni mooy xalif général des Tidiane ak kan mbokkam ma muy Cheikh Sidi Mokhtar Mbakke mu baax mi sang bii nekk ca tuubaa di xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan yàlla yàlla feq fanam defal ko maam Abdoulaye Thiaw Laye defal ko ñi nga xamante ni ñooy xalifa cheikh al islam cheikh Ibrahima ñas defal ko xalifa maam xalifa ñas di ko defal mboolem ñi nga xamante ne rek ñoo ŋànk diine bi yàlla nag def na jàmm ci Sénégal ba boo tuddee benn këru diine rek tudd nga ñëpp kon booy nekk di lib rek dootoo fi jógati fa tabarakallahu ñuy ñaan suñu borom réew mi yàlla dolli fi jàmm defal ko itam njiitu réew mi président de ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sàmm ba yenn wii nga xamante ni yàlla yen na ko yàlla na woyof tooy ba li mu bëgg ci Sénégal yàlla na ko yàlla defal moom ak mboolem ñi nga xamante ni ñoo ne ci ginnaawam di ko jàppale bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boo nekkee ci gaal ñaanal yàlla rek gaal gi mucc kii dawal gaal gi na mucc bu ko defee ñëpp mën a mucc yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla boole nangul جاي رسول الله لينا أوبيكولا بريزنت مولومي لينو بغ موي سنغال نيب بغ يونتبي صلى الله عليه وسلم لول ريك موي سونو ديمارش لول ريك موم موي سونو سوخلا ناخ يونتبي صلى الله عليه وسلم لم واخ سي سوبم لا كين واخول سي سوبم من احبني كم بغ من رسول الله كان معي في الجنه ماك يو مباك مباك با الجنه تفسير لول دا والله والله سيد الحاج مالك سي رضي الله عنه نانا يلا جلي باخنا وور باخنا دم مكه جي باخنا واي لم نيان يوم القيام موي بومي اتي nga atté ma ci ciofel gi ma am ci yonent bi ak وليس لي عمل القاك يا عملي سوى المحبه والتعظيم والسلام مام شي حال مال بوكو واخ كون سوبكو موي لب بوكو سوبي ديغا باخ di nga yiw di nga oyof ndax boo ko soppeeree da nga koy roy moom ngeen ubbee sànq mhm. sa soppi ci yonent bi du ñu ko nangu mhm. lu dul nga roy ay jikkoom mhm. simplicité ci la bokk modestie ci la bokk humilité gis nga humilité ak modestie ñaari wute la dafa mel ni dañu nduroo te nduroowuñu yàlla nag mo bëggal boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolal musa yalla ko ne musa fakhla'na aleyka mu ko recevoir ci tuuru Sina ne ko musa summe say dal yang ci place bu tedd yang ci place bu sel man yàlla may wax ak yow yàlla di wax musa di deg musa di wax yàlla di deg way musul gis jëm yàlla mu wax ak mom directement sans intermédiation waxuma intermédiaire de sans intermédiation nee na ko yaa Moussa اتدري لما جعلتك كليما بلا واسطه موسى اسكو خم نغ لوتاخ ما يوخ يو سانز انترميدياسيون سي تير ييب ديغندوكو سي تير ييب ليو مونيكو يا رب انت اعلم بذلك اي يو سما بروم يو يو ياكو خم واي من جامب دويد بي مونو ما خم لوتاخ مونيكو كاي ما خمال لا اني نظرت في قلوب عبادي خولنا خلو جامو يالا ييب فلم ار قلبا اشد توادعا من قلبك خولنا خول من ديف ييب غيسوما تي كو ام خول بو ملني سا بوس تي نانغو واتي تي نانغو ويوف تي نانغو تروخلو تروخلو خول كو ام جيكو يي سيمبليسيتي بي اويوف بي اك مباخ بي ما وولو لا بور دينك لا ساماي مير كون لول لو تي جانغي موي بودي ري موي ناتو يي گنا مك واتيك ويوف موي خيوال گي گنا ري Moussa yàlla nga ko recevoir ca tuuru Sina ne ko Moussa faxlan alayka summi say dàll innaka bil waadil muqaddasi tuwa man yàlla maa lay recevoir yaa ngi ci place bu tedd yaa ngi ci place bu sell Moussa summi dàll yi waaye sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa ne Jibril jëlal leeraay jant bi nga dolli ko ci leeraay weer wi boo ca jógee nga jël leeraay weer wi dolli ko ci leeraayu biddéew yi

walaw xutwa rek damay lakk ci samay leeru borom wëlbatiku ne ko ami du maître des mondes continue ta glorieuse ascension et progresse dans la lumière de tes lumières keroog la yonent yàlla Muhammad jël loxo ndeyjooram dóor ci tànku ndeyjooram ni maa ngi jéggi fu kenn mës ta jéggi njëkk ma te kenn dootoo ko jéggeet sama gannaaw maa zaagal basaru wa maa tara laqad ra'ahu min ayaati al kubra inda sidratu muntaha indaha jannatu maawa dem ba jàkkaarloog boroomam yàlla ne ko Muhammad nuyu ma xamul nu muy nuyoo yàlla ndax sañul wax yàlla assalaamu aleykum jàmm yàlla na jóge ci yow dal ci yow déedéet yàlla déye ko ne ko kenn musagumaa nuyu yaay nekk première mu def may nuyu sëggal ma déye la mu sëgg mu ne ko nii nga may wax nàngam ak nangam ak nangam ma fay la nangam ak nangam ak nangam jox leen ko micro bi yokku leen volume bi déglu leen sama soppeek may nuyu yonent bi naan yàlla attaxiyaatu لله الزكيات لله خوما كان ويوبر دالي تاي باتوك صلوات نيوم نيار نيب لله يالا نيكو تاي ما سيرفير لا سي السلام عليك والرحمه عليك والبركات عليك موتاخ ماني لا يوننتي بي موم رك سجا ديف ني ني ني ني ني با نيب جيخ با لب جيخ موني ني كنن كودول موم ساني انا من الله والمؤمنون مني يالا ديندي سي ليرام bind ma man rasulillahi séddoo ma dindi sama leer bind ci mbindeef yëpp sédd ma leen yéen ñëpp man ngeen amal affaire waaye man maa am affaire ak yàlla bu leen yàlla di jox da koy jaarale ci man mhm. ma tasaare leen ko mhm. lu ngeen jaamu yàlla mu néew mu bëri sama loxo ndey joor la koy yàllay teg yonent bi ne ana sayyidi wala di aadama wala faxra mhm. mu des ci à waaye képp kuy doomu aadama man muhammadu rasulullah maay sa sang wa bi yadi liwaawul hamdi yowma alqiyama

alors que tous apprirent de lui moom rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ko koy sayyid al Hadji malik ko koy imam Cheikh na Cheikh sadu abihi ko koy yakaru mam borom Touba xaadimu rasul yal nañ yàlla may beug ko amin ya rabbal alamin tafsir abd Abdourahman dama la don ubil dama don feug buntu bi ya yor tiabi bi yaay ubi buntu bi wax ñu li ci bir néeg bi wasalaamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شريف ñu لي lay nuyu bu baax jërëjëf tafsir di ziyaar suñu mbokk yi nga xam ni yépp fa tabarakallahu ñu ngi toogandoo ñun ci bi nga xam ni 2STV moo leen koy may samedi bu jot ci waxtu wi fii ci 2STV fa tabaarakallaahu nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xamante waxtu wi ñu ngi taal seen télé ñoom it bokk ak ñun émission bi di ko seetaan Chérif yal na yàlla fay la ñu ngi lay ziar bu baax fa tabaarakallaahu lépp samaam la xoolal gis nga samaam ca mbaax ga ak wàcc ga nee na rajab weeru yàlla la nee na shahru shaabaan muy weeru baraxlu nee na weeram la nee na shahru ramadan muy weeru koor weeru xeet wi la mais sa maam bu ñuy seet suñu borom subhanahu wa taala ci moom la ñuy jaar pour seet ko fa xanaa kon bokk na ca weer woowa weeru shaabaan nee na weeram la weeram la ndaxte moom rek wax nga ko léegi ana min allahi wal muminuuna min nii nee na weeru koor weeru xeet wi la xanaa loolu it moo ko moomati ndax nee na moom rek moo jóge ci yàlla te ñun ñëpp ci moom lañ jóge kon boo xoolee moom mi ne ci digg bi nga xam ni moo jëlee ci borom bi ba pare sédduñu mooy jële paas bi fëre ba pare paas ñu kon boo xoolee wéer yëpp moo ko moom waaye ci yaatalam ci ubbikoom ci la jëlee la jox suñu borom subhanahu wa taala mi bind lépp nga xam ni moom moom lépp di di kenn moom borom bi di ci asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar moom rek ka fa ne nee na law kaana fiihima alihatun illa allahu la fasadata réew moo dégg mu am coow rek dafa am ko ñu fal président jeneen génn daal ni dafa bëgg a falu président xëccoo am yàlla nee na bu fi ñaari buur nekkoon rek bu dul man bii ne asamaan bii ne suuf kon asamaan ak suuf yëpp yàqu na mhm. kon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo jële ci borom bi waaye moo ñu sédd mhm. kon lu yàlla bind rek moom rasulillahi moo tax waaye mbaaxam ak yaatalam mu séddale ko mhm. ni weer wii yàllaa ka moom weer wii maa ka moom weer wii yéen xeet wi yéen a ko moom kon fa tabaarakallaahu lépp yow la ndax it loolu nga def ndax émission bi yaa ko moom macha allah julli di yow la ñuy déglu waaye saa bu ñu ñëwee rek nga ni tafsir abdourahman damay tijji jox la xanaa ci tijji nga dëkk bunt boo xam ni waat boo tijjee tijjiwaat tijjiwaat tijjiwaat tijjiwaat mooy da ngaa bëgg rek man may wax rek waaye nag yàlla na ma yàlla musal fa tabaarakallaahu ba bu ñu ci gis suñu bopp benn yoon yàlla nañ la yàlla fayal ay dara kenn gënu la